Thier kii daa yor ki ma war a bëre rek Liss daa indi mooy booy bu dëkk Pikine. xool la indi xool ko daa pare nag. yóbbu na booy ba booy bu dugg ci làmb ji. moom mais mi ngi dem pour ñibbi. léegi nag borom dóoru la so euh, la sobee. pour yóbbaale ko. Ah, waaye nag moo am na combat mais daa mel amul combat quoi. Ah, moom kay combat bi trop. mais na xam nag mi ngi bëreeg ndax Liss Ndiago mën nga ko xeeb mais daanam nu bëreegal la de. am moom ma ngay dox di dem ma ngay jàpp de fii nag fii comme seen toolu maam moo tax da leen a jege bu ko neexee sax mën naa toog def a def à trois waaye nag mu na ni combat bu am solo la ci carrière am moo tax mi ngi doon taxaw wax ak gars yi muy combat bu neex nag la 5 mai diggante ak combat milieu la combat nante la ndax jàmm a gën wala liis di bàyyi ko te bu jógee liis li koy topp kenn xamul nu mu toll macha allah waaye Pokola mii dañ ko bàyyi xel de surtout mbër la doomu mbër la bu bu bëree daa war a bëre bu bëriwul daa war a bëre dañ ko bàyyi xel mu ngi ci biir làmb di def ay preuve am di def ay jéego nekk ci ay série de victoire waaye nag combat bi mu jëm combat bu doy waar yéeme. Pokola ban avantage la am si diggante moom Liss Ndiago. avantage yi bëri bu ñëwee ci ci bëre ku ne xam ne macha allah am na bu bëre bu nekk si moom waaye tamit bu ñëwee ci wàllum xeex gisagoo mbër bu ko fi humilier fii ci arène bi du ma ko daan ko day ñëw joxe kanam gi nit ñi dóor bay bëgg a dee. ba nga jàpp ni kaawoon na. boobu la gën a nekk biir combat kon moom avantage am ci làmb ji bëri na. maanaam moom ku yëngu na ko. déedéet ku ku yëngal ko ku donaat ndax tey ku ko doon yëngal xool diggante ak. Tapha 2 li mu encaissé egg ku euh, li nga wax mooy boo avantage am si laam. Liss tamit avantage am bari na ndax Liss tamit am na ndox bu bu nekk ci moom Liss bu jàppee day bëree waaye tamit ci xeex tamit tëlewul pour xeex waaye nag mën xeex ak encaissé coup dafa am différence. ok Liss mën na xeex mais est-ce que bu encaissé ku laa balle dina ko mën a seere loolu mooy wax ji ndax tey boo xool Liss fi xeex la dóoree naar sogaas mu daanu. mais gisaguñu euh, comme li Pokola Baldé encaissé ci ay coups. gisaguñ moom moo encaissé am résistance boobu taxaw eggal combat am. Mhm. gisaguñ ko Liss Ndiago mu def ko. Mhm. ndax dina ko defam ndéet. Mhm. loolu la ñuy yónnee yàgg. la 5 mai la. fii ci arène nationale. mais Pokola est ce que est ce que coup yu mu doon recevoir bu ko recevoir rek ci Liss Ndiago du am lu def si moom du am lu mu wàññi si moom. ah man gëm naa ni bu dee bu dee coup la yu nga xamante ni ci loxo kese la jógee. xam nga nag coup yi des fois mu ànd ak lapetaak la boo xamante ne bi boo dooree mu wàcc. mais bu dul lapetaak bu dee coup rek gëm naa ni mën na encaisser coup Liss Ndiago te du ko déranger ndax boo xoolee serpent moo gën a diis loxo Liss Ndiago serpent. non lu mu tudd euh, uh-huh. moo gën a dis loxo. lis li euh, nga xam xamante ni mooy lis Ndiago. lis Ndiago. Dame Suger moo gën a dis loxo lis Ndiago. Uh-huh. te te Pokola Baldé ku ci nekk engagé na sa coup. Uh-huh. mais terewul mi ngi ko géré ba génn si. waaw. kon daal jàpp nga ni kon euh, coup lis Ndiago mënul déranger Pokola. waaw yaakaar naa ko de bu dee coup kese la xam nga ne coup bu tegee la pétanque bu dee la pétanque bu nga xamante ne bii macha allah. bu la dalee mën ngaa wàcc. waaye bu dul la pétanque moom. bu ci gàllaaj génnee bu dee coup kese. Hmm. gëm naa ne Liss Ndiago. Hmm. bu dooree coup Pokola de mi ci kanam gi uh-huh. du ko déranger ndax ku yum recevoir. Hmm. yaakaar naa loxo yi ñoo gën a diis te loxo Liss Ndiago te te jël na ko ba pare zéro combat ba génn si. waaw mais làmb milieu jàmm gën Pikine. waaw xam nga xale yi léegi dañuy xool benn slogan. combat milieu. te yooyu man bëgguma ñu koy wax si biir làmb sax. day yàq làmb parce que yàq làmb. te làmb soxlawul tey làmb li mu soxla mooy fair play booloo bokku ndey bokku baay mooy tax tey amateurs yi sa war gën di gën a ñëw ci làmb waaye moo tax tamit sponsor yi gën a mën a ñeme pour dugal seen euh, produit ci biir làmb mais tey ni ngay dégg ñaar ay làmb milieu yeeg lii yeeg lii yeeg laa loolu bu ko indi ci làmb rek après li muy yàq lay bëri xool ko mi ngi noonu borom saret yaa ngi koy béy waaw waaw ñu turoon ñaari te Napoli ah waaw d' accord waaw d' accord d' accord. Pokola yaa ngi gis nag Pokola. Pokola a ngi noonu. Thier mi ngi noonu booy di saafante ak moom. waaw booy yaa ngi saafante ak xamal ak moom. macha allah daa saf bi ñu neex nit ñi. moo tax fu gars yi gis rek dañuy taxaw saafante ak moom. muy mbër bu nga xam ne macha allah bëri na jàmm. bëri na kaf bëri na foo bëri na ree waaye wàcce na boppam ba tolloog ay moroom rakam gis nga tey ñi mu taxawal nii ñu bëri ay rakam lañ mais teroo mi ngi wàcceeg ñoom ànd ak ñoom di kaf di foo di ree lii lan moo koy may mbër nga foo toog rek booyee ñëw seet waaw mooy yaru rek ak jàmm ak salaam ku gis sa bopp ci nit ñi boo ko defee rek da yaa xale yi yi ñëppee tolloo yéen ñëppay commencé nekk tool benn bokk ndey bokk baay mais nekk ci làmb nekk ci koñ di imposé ne ñi laa mel wala nga wane man nii mel loolu boo koy def nit ñi ëppoo leen fula joxoo lekk joxoo leen ñu naan boobu la njaay lu yar rek jàppal ne yàq boobu ñu ngi yëg ci kaw morom daa mel day dem day dem waaw dina morom ba ngay ñib ñu ngi koy sandis ndeysaan loolu mooy sandis ñu ngi koy A3 daa mel ni day wër na booy bi Momo noonu kaay ko tëdd yi ak Momo laay Momo laa ngi noonu laa ah dañ laa walaay ne mbaam bi mooy tëb bi noonu ñëw si barrière si kaw la cinq rek ba muy passé laay soo ko wàcc ah, la cinq rek jour boobu lay jeex jour làmb ji mais Pokola Pokola wuyu da ngay tëj leen serrage bi Poko yi bëre. da nga jël combat tëj leen serrage bi Poko yi bëre. Pokola mooy bëre mais yow da nga jël combat. waaw mais dañu combat bi coow lu am ci combat bi lan la luy problème bi. waaw léegi moom xam nga daa am benn kàddu bu mu wax. waaw dana jàmm gën. jàmm gën a pikin dër bi la ñu xamal ne ko ñun jàmm gën dañu fa am ay mbokk ay Baay Faal jàmm gën a pikin du dër bi bëri lañ seq ay mbayaar man yooyu muy wax noonu sax ñoo leen gën a doon mbayaar mais ñu ñooy mbayaar man ñooy ay taalibe lañ ay undu sëñ Fallou nag ragalu ma dara sama sëriñ laa àndal xaarim Mbacke sëñ xaarim laa àndal man ragalu ma dara waaw kon ñëpp laa seetal jàmm. wala demee ma mile jàmm nga ne ma ay mbokk. fépp faas ñëpp ma bëgg man ñëpp ma bëgg. mais yow ma bëgg ah la moo tax mu ñeme la seul waaw ah, lu tax mu ñeme moom la bu arbitre soufflé la cinq inshallah yàlla baax na yàlla yàlla ànd ak ñoom ah. ah, waaw seul lañuy toog li say njaago njaago du njaago njaago yaay nii di moom njaalo boo xam ne lekk yàpp mbaam yàpp bëy lay lekk mbaam la ñuy lekk ukëmbe laay walaay na lekk waay njàpp yi forox yi am foora yooyu noonu lekk ñu seeraas lañ dëkk da ngay xool nooy lépp barke sëñ Fallou Mbacke liis yab na bon li li moo soog am ndey lamb muy soog am lamb tapet la barki Seydina mu xam ne dëgg ñu la pokola xale la ñuy ànd ak moom ay xale la bilaay wallaay talaay amul xayri laa lay waatal nii bilaay wallaay sama avance yoo mën a may sama ngont ak jafe jël sama avance yoo mën a de ñëw say mbokk ñaanal la da nga dug fi nga war a dugg lépp mais attan sama ngont ak jafe ay mbir nag laa la wax nga bëgg enchaîner yàlla baax na rek la sëñ. la sëñ xool nag kii mooy mbaam bi laay walaay jalaay mbambaay nii lii su mbaam bëy la ah du njaago njaago original yaay nii ah. ay xaar laay walaay